sont des leaders donc je pense que ne dialogue boobu noonu képp kuy leader je dis bien waroo ko refuser parce que bu fekkee leader nga li la ñor mooy jàmmi Sénégal te dialogue bi li muy woote mooy jàmmi Sénégal donc saay loolu defe naa waruñ koo daw leneen loo woote xëy na lu dul loolu peut-être tu aspires à autre chose lu dul ko ñun ñëpp ñu mën a nekk ci benn consensus voilà nekk en yaa ko wax léegi. yaa ne euh, suñu suñu euh, fi dëkk bi toll deuxième guerre mondiale ko gënoon métti. Mhm. première guerre ko métti. Mhm. même avec la Russie et l'Ukraine la moo ko gënoon métti mhm. fukki junni yoon mais yëpp fan la mujjee. ci waxtaan ci waxtaan. alors nañ leen waxtaan am na ku nekk ci buumu jokkoo bi. voilà am na ku nekk ci buumu jokkoo bi allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa soxna si maa ngi lay nuyu di nuyu seen internet yi nga xam ne ñi ngi seetaan. ci réew mi ak ci bitim réew. ñu lay fay. Euh, man la El Hadj Ibrahima Niass. Mhm. Kaolack lew na ñeseen. ñu nuyu waa lew na yëpp leen ziar. Euh, waa kay ñu ngi lay fay. Mhm. di doom ci El Hadj Babacar Niass mu nekkoon ñaareelu xalif général bu lew na ñeseen. ñu ngi lay bu baax euh, rafetlu bu baax émission bi. Mhm. ak kàddu yi fiy jógee. Mhm. Euh, ndax réew mi jamono ji foofu la toll ñëpp kenn ku nekk la nga xam yaa ngi koy wax pour luy indi si jàmm ci réew mi. Mhm. ñi mën a wax ñi ngi wax. ñi war a dox ñi ngi dox. yéen i tamit ni ngeen mane yéen a nga ca loola ñu ngi koy rafetlu bu baax Mm-hmm. may sos rek leen na ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi wax muy si Ahmed Tidiane Khalifa Niass. Mm-hmm. muy xalif général bu Léona Niassène muy sama papa si Ahmed Tidiane. Mm-hmm. Euh, ku ñu yàgg a topp ñun cheikh yi le Simon yaakaar naa yàgg nga dégg ñu wax loolu. tey euh, loolu yëpp dafa feddale rek lew na Niassène moom toujours si njaaxaanaay la tëddee. waaye buñ fàttaliku na jamonoy président Abdoulaye Wade keroog bi mu bëggee wax ne day def troisième mandat. Mhm. Eh, kaddu gi xalifa général bi El Hadj si eh, Ahmed wax noonu la alxaaji Ibrahima xalifa Niass waxee woon kaddu googu jëmale ko woon ci Abdoulaye Wade loolu yaakaar naa ñëpp a ngi koy fàttaliku. Mhm. Mhm. kon lew na ñeseen moom dafa nekk kër goo xam ne ñëpp dañ koy bàyyi xel comme nit ñi dañ koy bàyyi xel nag te liñ ñu suñu maam bàyyee woon ci dëgg ak ci ngor ndax état danay am fu mu toll foo xamante ni nguur du jàpp ne yàllaa koy joxe. Mm-hmm. waaye su demee ba nar koo ñàkk du jàpp ne yàllaa koy xañ mm-hmm. Mm-hmm. ndax toujours lu ci ëpp ñoom dañuy jàpp ne pexe yi suñ ko defee wala suñ defee nii rek wala lii mooy tax dootuñu nguur gi li ñu koy ñàkkal li tax ñi koy ñàkk diw la wala ñii la. mu bokk ci li tax ñu foog ne moo ñooy ñàkkal nguur gi mooy mbiru politique bi ci opposition bi ak lenn ci wàllu média mm-hmm. lu mel ni wal fajri biñ tëj mm-hmm. mu naqari ñuy lool ñun lew nañu seen mm-hmm. ndax wal fajri ku ko tëj tëj nga Sénégal te yaakaar naa ku ko tëj tëj nga dëgg may may may may sos nag ci kàddu xalifa bi rek ci li wax ne nit su demee ba jeexal dafa am nit ñoo xamante ni il faut que mu fàttali ko moom président Macky Sall. di mhm. fi Abdoulaye Wade di nekk. bi mu demee ba nga xamante ni weeram yu mujj yi la woon ñii dendoon ak moom di wax nga xam ne ñu ci ëpp ñoo nekk ensemble di wate ñu ci ëpp ñoo nekkoon ci président Abdoulaye Wade di ko waxoon lii te tey tey ana Abdoulaye Wade. Mhm. bi mu fi jógee bi mu fi jógee biñ taxawalee ne état bi dafay am ñu muy topp ci alal ju lewul ñii dañoo dem jël seen ngor jaay ko dem jébbaluwaat ci état booba ñooñu ñoo fa nekk tey jii. Mhm. taxawaat ne ko mën ngaa defaat troisième mandat wala mën ngaa toxalaat élection yi. Mhm. waaye na bàyyi xel ne yàlla moom saa yu joxe nguuram su la koy jox dakku moom wax waxut yàlla waxut ne damay nangu mais damay foqati la wax. Mhm. ku bàyyi xel na xam ne jamono ji réew mi état bi ak nguur gi yàlla day nekk di foqati fi la toll. ndax ni muy dëgëree pour ñu jël ko ci ñoom kon loolu foqarti la ñun keroog suñ ziare général bu lew na ñeseen bi fii seen seen seen fii may wootee ku ko seetaan seetaan noon na direct yi ñu ci def ak plateau yi mm. ci jouru jouru ziar bi ci jouru ziar bi mbooloom yépp nekk fi ci la président Macky Sall annoncé ne élection yi dañ koy toxal mm-hmm. loolu rek doy na li gën naqadi xalifa bi ci lii mu def nii mm-hmm. taalibe yëpp dajee fi àdduna ñëpp ñëw ñëpp di séentu ñëpp di sàpp ñaan ñëpp di bàyyi xel ci seen ci yàlla en tant que président de la république taxaw ci média taxaw ne toxal naa élection yaakaar naa ñi doon teewlu ci ziyaara bi ñu bari danañ bàyyi xel dootuñ bàyyi xelati ziyaara bi ci lee la ñuy nekk mhm. xalifa bi nag ci lim nekk mooy liy nekk dëgg mhm. moom seetut ku ko jox ak ku ko ñàkk jox ndax moom kenn rek moo ko mën a xañ kenn rek moo ko mën a jox mooy subhaanahu wa taala mooy yàlla subhaanahu wa may ñaan nag réew mi yëpp ñi ànd nekk benn waaye nag ñi def ko ci dal mm-hmm. bu ñu yàq bu ñu toj mm-hmm. bu ñu saagawaan mm-hmm. ñu ko defee ñi war a ñi war a dox dox ñaan ñaan téye seen kurus ñi war a wax wax yaakaar naa ne su boobaa président dootul amati benn yoon bu mu mën a jaar boo xamante ni fa lañ mën a jaar pour toxal élection ndax jamono jii sax man damaa jàpp ne moom si boppam moom président Macky Sall su su ñëpp nangu woon ne dañ ko koy yokkal moom warut nangu loolu. Mhm. ndax moom ñi ko faloon askan wee ko faloon. Mhm. mu tànn lu toll ci téeméeri nit ñi bëgg koo falaat. ci mhm. lu toll ci ay million nit nar la koo xañaat waaye yaa xëyti mu naanaa war ngaa wax ne man déedéet. na bàyyi xel ci boppam te na bàyyi xel ci yàlla ay millions yi nit ñoo fi nekkoon bi muy xëccoo réew mi. yàlla tànn ko moom kot gënut fi nit ndey gënut fi nit baay gënu fee jàng ëpp fi xam-xam gënu fee rafet mhm. waaye yàlla moo ko yëkkati tànnal ko boppam ne ko yaay jiite réew mi kum neex moom la ku mu naqadi moom la mhm. papa yaa foofu ci lew na dagu daguma la euh, mhm. naka ngeen gisee reportu élection yi ak xalifa bi moom lan la ci àddu waaw moom laa la moom lay wax nii parce que mooy li xalifa bi wax démb Mm-hmm. démb yaakaar naa tey Sénégal yëpp dégg nañ ko muy suñu papa. si mm-hmm. Ahmed Tidiane xalifa Niass. yaakaar naa li mu ci wax leer na moom bi mu waxee ci Walfadjri daf ne. Mm-hmm. président Macky sàll jeexal nga. saw tëflit sax saw tëflit sax soxlaatuñ ko fi. ne ko man ngaa war ngaa mën a jaar ci port bu mag bi bañ a jaar ci port bu ndaw bi. moom loolu la ko yéene. moom li mu ko yéene loolu la ko wax ne ko mën ngaa jaar ci port bu mag bi loolu nag weesoogut. ba léegi weesoogut. Mm-hmm. ni mu defalee woon loi boobu dugal ko ensemble. Mm-hmm. noonu lay taxawaatee ne Sénégal gii kat lépp lu ko nar a taal man de du jóge ci man comme gis naa ne lii ma namoon Sénégal yi ñoom xaj na comprendre wuñ wala lii lañ gis. Mm-hmm. nañ delloo fiñ fu jàpp élection yi ñi jàpp ko fa ku war a bokk bokk ñi nga xamante ni ñoo war a wate ji ji ñi war a arbitrer arbitrer ku yàlla jox nguur gi ñu xam ne yow la. Mhm, gis nañ xalif bi dafa su boobaa dana génn benn vidéo rek daal di ah. wax. ma ne gis nañu xalif bi def benn vidéo bu am solo daal di wax ci kaawu euh, Walfadjri ak li nga xamante ni mooy président wax nga ko léegi est-ce que ñoom ñaar jokkoo nañ ba waxtaan ci situation réew bi ngir mu dellu ginnaaw. waaw xam nga xam nga xam nga sëriñ bi. Mhm. yàgg yàgg naa yàgg naa dajeeg euh, président di ko ko wax. ndax bul bul fàtte ne keroog bi président soxla réew mi fii ñoo bokk na ci këru diine yim xam ne bokk na ci yim njëkk a ñëw muy fii ci lew na ñeseen maa ngi lay wax ne boobu alaaji ibrahima xalifa moo fi nekk keroog bi mu ko waxee na ko damaa soxla réew mi daf na ko réew mi de ku ku ku bëgg jàmm lañ fi bëgg a teg mu ne ko ah, man de loolu rek la mooy sama yite loolu la mm-hmm. si la ko alaaji ibrahima waxee woon ne man nag nit ku ñëw dinaa la wax sama soxla mooy sama soxla mooy jumaa ji man naa koo yeggali waaye bëgg naa képp ku nekk ci réew mi mm-hmm. nga jàpp ci ñu yeggali ko mm-hmm. mu ñaanal ko yàlla alaaji ibrahima mook moom ba alaaji ibrahima génn àdduna mm-hmm. xalifa bi toog fi tey bi fi xalifa bi ñëwee président Macky Sall ñëw na yeesal ak taalibeem ci moom mu soññaat ko ne ko li alaaji ibrahima nekkoon rek ci laa nekk mooy lépp luy indi jàmm ci réew mi na yu koy yow la yàlla tànn na nga tëddee njaaxaanaay mhm. bul xàmmee sa noon ak say soppe ñëpp say njaboot lañ nit nag su nekkee ci kër mhm. am na ay yor ak njaboot su toggee añam ba mu teg ba teg njaboot gi ñëpp war a xàjjale naan kii ay lekk kii du lekk mhm. rawatina nag bu dem a dem a dem ba nga xamante ni moom jeexal na